nay xëy waax ne salon de startup 4 point 0 li nga xamante ni mooy njariñ li daat nay bëri lool la waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa MEDES bokk nañ ci maanaam gunge nag ndaw yi nga xamante ni ñooy ay jeunes acteurs jëm ci wàllum écosystème numérique yéen kaay gi nee na li nga xam ne mooy salon des startup sax dañuy soppi li nga xam ne mooy tur wi tuddee ko Afrique Tech objectif bi bokk na ci nag at mu jot ñu daal di dalal lu toll si ñetti junni ci ay startup lu toll si junni ci ay visiteurs ak lu toll si juróomi téeméer ci ay taskatu xabaar ay junni junni conférencier international nationaux MEDES ak salon des start-up ñoom jamono ji dañoo engagé wu ci wetu njiitu réew mi di président Macky Sall ngir nag jàppale ko ngir mu mën a réussir ci lu jëm ci wàllum numérique ak création d'entreprise ak lu jëm ci start-up jigéen ñi ak góor ñi yéen a gi di réew mi quotidien ak las Vox Populi observateur enquête les échos source a ñu xëy fekk fa Aminata Touré mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon conseil économique social environnemental mu ngar daajoo mbooleem yéen a kaay ñu xëyandoo diggante Aminata Touré ak njiitu réew mi di Macky Sall c'est fini julli tubaab moom Mimi Touré daan nay wax ne ñetteelu mandat kenn xalaatu ko ci réewum Sénégal moom Mimi Touré nee na Macky Sall ci boppam bii moo nekk ñaar ak lu mandat ma ndax moom Macky wax na ko ay yoon yoon ci atum 2019 ne Sénégalais bu ñu a falee ci atum 2019 mooy nekk sama ñaareelu mandat ak sama lu mandat te loolee leer na mbirum ñetteelu mandat ma ngi sunu ginnaaw wax ko sax yàqi wax la kàddu yi Aminata Touré la moom Mimi Touré ci yéen a kaay gii de la Tribune nee na fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2018 Macky Sall waxoon na ne bu ñu ko falaatee deux mille dix neuf deux mille vingt quatre lay jeexala Aminata Touré daal di wax ne lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat gi na ñoo xamante ni ci dëndu Afrique ànduñu si ndax ci Afrique sax boo ko xayma téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ak juróoma dañoo d'accord ci ñu limiter li nga xam ne mooy mandat yi ndax foofee la démocratie toll te nag képp koo xamante ni yaa ngi ci am réew di saax-saaxe wala ngay ñàkk respecter say constitution loolee ci boppam mën naa indi ay jafe-jafe Aminata Touré li nga xam ne moom la ñuy xaar ci président Macky Sall mu respecter li nga xam ne mooy constitution bi yéen kaay gi di enquête nee na lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi ci réewum Sénégal sooxe na ba fu ko waaye natt passé na ko ndax ci biir réewum Sénégal su passé Dakar ak Thiès yeneen région yi amuñu ay hôpitaux yu baax amuñu ay spécialiste amuñu plateau médical bu baax région bu Kolda ak li muy rëy fukk ak benn ci ay médecin kese moo fa nekk hôpital bu Mbour amul ambulance médicalisée yéen a kaay gi di L'As nee na hôpital bu Ziguinchor moom moo gën a malade ci hôpitaux yi ndax nee na sax hôpital bu Ziguinchor moom moo gën a feebar malade yéenekaay gi di Vox Populi nee na conseil municipaux benn yoon ngir ñu jëlee fi ville bu Ndakaaru yéenekaay gi nee na Khalifa Sall jamono ji am na lu muy waajal ginnaaw bi mu gisee ak Ousmane Sonko gisee ak docteur Cheikh Tidiane Dieye gisante na ak Abdoul Mbaye ak ñoom Thierno Alassane Sall yéenekaay gi di Libération daan na xëy ci Eiffage wax ci taxe foncier yi nee na autoroute à bi fi muy jaar fépp Eiffage dafa war a fay ay taxe waaye nag li nga xam ne moom la ko état bu Sénégal nangul ni ay taxe mooy at jot 1000 francs ngay fay maanaam juróom-ñaari at yëpp 7000 fay ni ay taxe te loolee sax gëmuñ ne seen 1000 francs nañu ko te nag am na ay faveur yu baree bëri yoo xam ne jox nañ ko EFAS ci lu jëm ci wàllum fiscal ak wàllum douanière yéen a kaay gi nee na li nga xam ne nag moo am ba des daal EFAS ci 2019 bi rek jël na lu toll ci 143 milliards waaye nag EFAS fan la teg di fay taxe 1000 francs at mu jot ci taxe foncier bi loolee moo jaaxal gars yi yéen a kaay gi de la Tribune nee na front social bi jamono ji mere nañ lool Macky Sall ndax nappkat yi mer nañu jàngalekat yi mer nañu étudiants yi mer nañu njaboot gi mer nañu yéenekaay gi di Vox Populi nee na liggéeykat yi nga xam ne nekk ci collectivité locale yi ñoom tamit jamono ji aw nañ si yoonu xeex ndax ànduñu benn yoon ville yu mag yi ñu koy jël ci réew mi Dakar Times nee na en tout cas Macky Sall war na xoolaat boppam war naa xoolaat taxawaayam ndax nag bëri na ci réew mi ñoo xam ne mer nañu ba futu ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi wàllum transport bi wàllum njàng meeg mi ndaw ñi artistes yi ambulanciers yi mareyeurs yi entreprise yi yii yëpp dañoo sooxe ñu ci bari am si ay jafe-jafe gi di enquête nee na lu jëm ci accord de pêche yi nga xamante ni réewum Sénégal signé na ko ak waaye waa a européenne Ousmane Sonko gën naa dugal gouvernement bu Sénégal jël na lu toll si juróom benn ci ay laaj jébbal ko assemblée nationale en tant que député laaj na leen lu jëm ci accord de pêche yi nga xam ne état bu Sénégal signé na ko ak léexoo rek ndëngata yi nga xamante ni moo ci am wax na lu jëm ci wàllum ni ñuy exploité phosphate bi ca diwaanu Matam wax na ci lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz ak droit pétrolier yi gi di réew mi quotidien am na benn jàngalekat boo xam ne sa Kaolack la ñu ko rey